dootu métti dootu métti Aziz lu fi tàngoon seeral nga ko dootu métti dama ne bu leen gërëm ki xambataal bi ki taxani toog Maguette Ndiaye du moo xambataal bi ba cin li wañax Aziz mbay nu noo ngi lay gërëm li commencé kër Modou Ndiaye kër mbay Jaxate kipp noo ngi lay sant di la gërëm di la cant nag sant goo xam ne am na commencement waaye amul daaneel ndax li nu taamu woon ci yow gis nan ko yàlla mi borom jàmm ku mu jàmmal nga jàmm yal na la yàlla defal jàmmi àdduna ak ak mboolem jullit bu nu ko yéenee ci màggug yàllaa ko mbaaxam. lan la leen defal tey ak ban njariñ li mu nu defal tey njariñ li mu am ci nun bari na ndax jaboot ju jamono bu naqari bii ku ci yoot jaboot kilo pomme de terre maa jóge marché tey maay seede si man ku bokkul. ku la ci peeseel pombiteer peeseel la soble kilo soble téeméer mu peeseel la ko sa kër ak na mu toll jël ganaar tegal la ci ak na ginaar genn ginaar gu ne juróomi téeméer ku la defal defal na la lu rëy nun noo am pe amunu payam am nanu nag defal nanu cant gu am commencement waaye amul ab daaneel Aziz daal nun li nu ñaanal saa yu noo ngi koy ñaanal yàlla defal ko guddu gi fan go ànd ak wér ak président euh, Macky Sall mi mu àndal yal na leen yàlla defal guddi gi fan go ànd ak wér mucc ak muccule sutura ak teraangay àddina ak àllaaxira ju sax daak ak mboolem jullit bu nu àndal ak ku ko teewee ku ko fekkee. man Ngam Ndiaye Ngam ma Songo Ndiaye délégué de quartier Kër Modou Ndiaye. waaw ginnaaw bi ñu sant yàlla yonent ba euh, di julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa li ñu fi dajale mooy doomu dëkk bi di indi ay teraanga ci dëkk bi te tàyyiwul ci teraanga yi ndax barki démb la fi jóge indi fi teraanga ji wër kër gu ne dugal na fa juróom-ñaari junni ñu ne ko di ci am kontaan bu baax loola mu defoon moom la defaat nii tey jii xam ni korite jot na muy naa dem kat gees sama ginnaaw mënoon naa bañ a gestu ginnaawam ndax am na ñoo xamante ne ni ba ñu demee lañ fàtte seen dëkk mais moom fàttewul dëkk bi te waa dëkk bépp ñu ngi topp ci ginnaawam di ko sant di ko gërëm ndax lii mu def nii comme ni ko soxna si waxee léegi rek àll bi ku ne xam na ni mu demee bu geesoo àll bi nag indi leen teraanga ji toll nii ah loolu loolu ñaana ku yàlla rek moo président de la république ñoo ngi leen di ñaanal yàlla di ñu bëgg ñoo ko xam yàlla leen ko yàlla defal te assis du ndax daaw nii la fi def lu mat juróom-ñaari dëkk fii ay nag yu bari la jënd fii man mii maa jënd nag yi maag sama doy Maguette Ndiaye bii moom mi nga xam ne moo fi nekkal Assis nekkal fi Macky Sall nekkal ma fi maa moom ñoo ànd jënd nag yi nag wu nekk daanaka mën naa ne trois cent cinquante mille quatre cent mille lañ ko jënd dëkk yëpp ci lañu ñu ndawaloo daaw kon lu sant ko la ñuy def te mënoon naa yem foofu te yemu fi kon Aziz daal ñoo ngi sant di ko gërëm mook président ak soxna Marème Faye Sall ndaxte wolof Njaay ne bu peccum liir neexee maam yaa jàpp ci mbaggee du dëgg lu ma am lu mu mën daa ànd président kon ñoo ngi koy sant mook gouvernement bi yëpp di am kontaan bu baax dëkk bii nag day ay ka dëkk yu wër yu bari yu wër Kër Modou Ndiaye fii 36 villages commune Fandène commune rurale Fandène les 36 villages yëpp fii lañ daan daje dañ koo dagg kay def Fandène fee boole ñu ci commune bi waaye nag assis fàttewuñu ci commune lañ bokk ku ñu dëkk bi ci commune bi la bokk soo ko xamul ah, da nga koy weddi ndax dañoo bokkoon ci commune rurale bi yàlla dogal ñu indi ñu ci commune bi commune bi wax dëgg yàlla dañoo ñaan yàlla gis suñu bopp waaye ñu ngi gis suñu bopp ci Aziz ñun ñu ngi gis suñu bopp ci Aziz bu baax a baax kon kontaan nañ ci Aziz Mbaye nee leen ko suñu xol sedd na guyu li mu bëgg moo président de la république moo ko xam yàlla na ko yàlla defal quartier bi képp kër Modou Ndiaye kër ma kër Mbaye Jaxate ak village yu ñu wër yëpp ñoom ñëpp ñu ngi sant Aziz di ñaan yàlla Aziz nag mu dimbali na ci leen ko waxoon fii rek poste de santé moom lañ bëgg fii ndax lu mat ñaar fukki dëkk ak nangam mi ngi wër dëkk bi te fii moo kon pays bi dafa yàgg a nekk pays naka jekk booba waajuru Assis moo nekkoon président communauté rurale fii donc loolu lañ bëgg mu jàppale na ci bu baax jàppale ñu ci miiru école bi jàppale ñu ci miiru euh, jumaa ji loolu daal loolu la di ñaan Assis lu mu mën ci place yoo xamante ne mën na koo dimbali ci xale yi ndaxte euh, di la may jën tout Euh, wala li lay ni ngay nappeet da baax bu ñu amoon juróomi fonctionnaire ci dëkk bi au moins moins waa dëkk bi daañu ci gis seen bopp te fii dëkk bi yaakaar naa ñaari fonctionnaire doo fi nekk kon ñoo ngi koy ñaanal yàlla li mu bëgg daal moog ak gouvernement am yàlla na leen ko yàlla defal loolu laa leen doon sànni di leen sant yéen nag vraiment yéen ñi encore wax. waaw ñeneen ñi li ma li ma leen di dënk ñeneen ñi li ma leen di dénk mooy nañ def ni Abdou Aziz mii ndax buñ ko defee fépp dina nooy ndax fii kat ACID def na fi loo xamante ni kenn ku nekk fa nga nekk ka nekk Ndarak ka nekk dakaar ka nekk Fatick yëpp dañoo war a def ni ACID mbay mi di def buñ ko defee day ñoom daañu am daañu président dina am ndax président lii doong la bëgg nag ku dimbali askan wi ndax boo dégloo rajo yi xam ne président mi ngi jàppale askan wi baax a baax a baax kon nañ góorgóorlu jàppale askan wi def ni Abdou ACID mbay di def yeneen ministère yëpp nañ def ni Abdou ACID mbay def buñ ko defee président du am benn jafe-jafe man la Fatou Sène dëkk Kër bay Jaxate waaw li ñu tax nu daje fii tey ji mooy Abdou Aziz taranga ji nga xam ne moom la ñu daan yónnee moom la nu yónnee waat tey ji nuy kontaan si moom bu baax nag ah di ko sant di ko ñaanal tey ñaan yàlla yàlla yokkal ko xéewal gi ndax wax dëgg yàlla gis na sunu bopp bu baax si affaire bi ndax jàppale na nañu daaw ba ren korite yëpp daf ñuy yónnee loo xam ni daf ñuy jàppale ndax jaboot ku ko jàppale ku ne rek dalay lay sant di la gërëm kon ndax da koo neex rek mu def ko bu ko neexul woon du ko def ndax am na ñu gën a jege say bokk te defaloo leen ko kon Abdou Aziz bu amee fu mu toog bay gestu ñun ñii di gestu waa dëkkam ba ñuy gestu waale dañ sant ndax mbir mi mënoon na koo yemale kër du Ndiaye kese te yemale wu ko fi da koo diri ba indi ko ba fiis sedduñu si ñun ñëpp ban gis si suñu bopp moo tax affaire yi euh, suukaru score yi mu doon jox te joxul kër Mbay Jaxate tamit kër Mbay Jaxate amul leen lu si gis lu ñaaw képp ku mënti doon ku nekk xalaat nga sa xalaat bu rafet ndax ñun démb la ñuy fàttaliku tey di doog a dikk ndax si dee ni daf noo defal teraanga mu passé tey jii ni joxunu joxuñu sukkaru koor nuy mer wala nuy am lu ñu say kaas ni jox na kër du joxuñu déedéet fii borom dëkk bi ak doomi borom dëkk bi ñun ñëpp bu ñu toogee di wax dañ ni ñun de amuñu lenn luñ siy wax ndax xool nañ démb ndax ki lay defal démb bu la defalulee tey nga am loo wax séentul nu kooku du gor bis boo teggee sa loxo rek pere na si yow te ñun ñaanu yàlla pare si Abdou Aziz ndax Abdou Aziz doomi dëkk bi la danoo bokk ak moom avant teranga jum ni defal kon bu tey ji doonee su doomi dëkk bi retourné waat defal nu teranga dañ koy sant dañ koy gërëm tey jii bu andiwul woon lii tamit billaay wallaahi dëkk bi kenn du wax dara nda xool nañu lam nu defaloon démb kon kontaan nañ si moom nu ngi koy sant nu ngi koy gërëm te di ko xamal ni ko màgget mi nga xam ne moom la jiital nu ngi koy gis bu baax mi ngi waxtaan ak ñun mi ngi sottante ñun xalaat bi nga xamante ni affaire suukar score si jot si ba ma yëggoog moom gëj na gëj naa wax ak man sax téléphone ma xam li tax wootewul ak man man maa ko woo téléphone ne ko li woo woowoonu xam nan ko waaye xamal ni boo déggee benn baat jógewul si dëkk bi kii di borom dëkk bi waxu ko doomi borom dëkk bi waxu ko maire yi waxuñu ko kenn waxuñu ko ñun démb la ñu fàttaliku ndax lam nu doon defal da koo neex rek bu ko neexul woon di ko def lii passé xëy na daa nekkul suñu wërsëg te bis bu jotee tamit dinañ si jot suñu wàll kon nu ngi koy sant di ko gërëm di ñaan yàlla xéwal ga yokku yàlla yàggal ànd bi jàppale ko moom màgget mi nga xam ne mu ngi koy jàppale fii bu baax nu ngi ko siy sant di ko si gërëm wasalaam auzu billahi min sharri shaytaani rajim bismillahi rahmaani rahim asalaamaaleykum yéen mbokk yi maa ngi leen di nuyu ku nekk turam ak santam léegi damay wax ak suma mbokk alpulaar yi ak seen nekk seen ak seen sant ma wax leen li nga xam ne moom la uh, Abdou Aziz def fii ci dëkk bi mu jële ko ci uh, Kippupol Kippupol la tudd assalamualeykum oɗon wanndiraaɓe mini on uh, salmina miɗon yetta miɗon wiya kadi e mbiwon jarama jeffo euh, abdou asis mbaye euh, ko ƴetti ko kilifa muɗum alaji makki sall ha rewi abdou asis kay arte chef de quartier arte délégué ɓe ɓe ganduɗa ɓe goni e nder guure he mais on on golle ɗe ɓe golli ɗe a nder quartier he woni quartier kermoɗo ndiaye antar kippupol a saare moɗo ndiaye saare mbaye jakate ndennoon woni ɗo ko dada piɓon anneya jaggira makki salla gandon kadine ko président mo ganduɗa ko président jaam ko président jiɗɗo liggade kadi e nder lesdi he ko président mo ganduɗa kadi ko président gonanɗo wasdolɓe walloɓe miskinoɓe mo ganduɗa waɗa muɗum wiyani en peera ɗum dañi ndeɗo waɗi yaakaar tolla totti firde nder sénégal hande ganduɗa nde ko ɗum firde labtude nde ala jeddi nden noon mbiɗa waɗi yakar e, ko ɓuuti janggata si ɓuuti hollori hoore muɗum loolu liko tekkici pular moye janggoro bunnewe wonena boppam e, liko lima ciiteg nak e, wolof bi nak leerul loolu ma tak makoy wak ci pular ci suma mbokki poli ndax alaji Macky salla léegi euh, wit gis moo weddi bokku ci ndax li muy def ci réew mi ñëpp teg nañu seen bët kon nag ah nun mënuñu ko wax jaaraama li mu mébét ci biir réew mi ci li koy dogal réew mi jëm kanam yàlla na ko ci yàlla jàppale mu ak képp ku mu ko bokkal ci yéene boobu ndax nun amuñu lu dul suñu njaboot amuñu itam suñu réew képp ku ñu koy defaral nun mënul def lu dul santaku ak fas yéene jàppale ko ndax gisuñu keneen koo xam ne kii tànne na Macky Sall tey ci biir Sénégal kon nag nun mënuñ wax lu dul jaaraama Macky Sall jaaraama Macky Sall jaaraama gouvernement Macky Sall jaaraama maanaam président maanaam quartier bi jaaraama ñi nga xam ne ñooy mbootaay bi jaaraama population. Euh, Maguette Ndiaye euh, responsable APR euh, à Kër Modou Ndiaye. waaw tey euh, li waral sunu déplacement si kër Modou Ndiaye ki People kër mbay Diakhaté mooy li nga xam ni mooy sunu frère Abdoul Aziz mbay di def à chaque fois que benn xew-xew am fii muy mu yàgg ko def lépp loo xam ne am euh, xew na fi maanaam tabaski korité tamxarit gàmmu ba màggal lépp loo xam ne am na fi vraiment gis nañ ni day jël si li nga xam ni mooy alalam di ko jàppale ñi nga xam ne ñooy askan wi nekk fii loolu nag euh, daf ko yàgg def du lii moo tax euh, du du tey rek la ko def te aussi su ko defee aussi nekkul lu ñu bett parce que ñun ñëpp xam nañ ni moom ku jigee président Macky Sall la ñëpp xam nañu aussi ku jege la première dame Marème Faye Sall te gis nañ Marème la première dame li muy def si action sociale si biir Sénégal partout euh, président Macky Sall aussi si programme plan Sénégal émergent ñu gis si benn point bu am solo muy euh, la bourse familiale te yaakaar naa ni Abdoul Aziz mbay bokk na si responsable yi nga xam ni respecté nañu engagement wala yoon wi nga xam ne moom la président Macky Sall tracé muy jàppale ñi nga xam ni dañu néew doole yaakaar naa ni si tànk yooyu la nekkee te président Macky Sall je pense que responsable yi mel noonu la la bëgg responsable yoo xam ni dinañ jege seen askan responsable yoo xam ne askan bi seen bët xongee dañ leen gis responsable yoo xam ne du ñu du ñu du ñu du ñu du ñu tëj seen téléphone ndax problème mu askan beeg yooyu yaakaar naa ni ku jege population bi la mi ngi leen jàppale mi ngi jàppale si wàllu sociale mi ngi jàppale si wàllu école bi bërki démb gis ngeen li mu def si école bi mi ngi jàppale aussi si wàllu wér-gu-yaram ñëpp ñoo xam ne aussi am nañ ay problème moom si boppam waxtaan naa si ak moom si wàllu santé bi ak lu mu mën doon vraiment jël na si ay engagement te yaakaar naa ne mi ngi si tànk yooyu donc du ñu def lu remercier ko en tant que doomu dëkk bi je pense que actu yu rafet la yoo xam ne vraiment dafa nekk suñu fierté pour ñun. bon teranga tey yi mu indi fii gis ngeen ko yaakaar naa ni diwlin la ak ay ginaar. ak soble moutarde ak pomme terre lépp loo xam ne daal vraiment dañ koy jëfandikoo njóobeen dañ koy soxla si wàllu euh, korité bi yaakaar naa ni soxlawul ñu koy jënd ji faneen Abdoul Aziz Mbaye si boppam indil nañu ko euh, yaakaar naa ni loolu moom nekkatul problème si ñun lépp loo xam ne mbirum ndawal la wala pomme terre wala diwlin wala soble moom macha allah indil nañu si bu baax a baax a baax a baax di ko sant bu baax encore di ko remercier en tant que doomu dëkk bi.